2017 2018 nguur à peu près dese ñetti milliards am avons benn milliard milliards xam ne euh, war nañ ko fay ci bi nga ne loi des finances initiale 2019 milliards qui ci waxtaan yi de sax depuis dem am na yaakaar que fii ak semaine bii di ñëw danañ ko fay buñ ko fayee donc ci at mi at mi ma leen wax léegi ñaari milliards moo ci des mais bu loolu weesoo ci année bi euh, année njàng mi 2018 2019 am na lu ñu war a fay ci loolu euh, nguur gi euh, nee na ci loi des finance rectificative bi nga xam ne Euh, war nañ ko wootee ci assemblée fan yi di ñëw am na loo xam ne euh, euh, dégagé na ko génne na ko dina ko génne ah en tout cas dinañ ko wote pour que loolu mu mën a fay li des ci année bi passe li des ñu dugal ko avancé ko ci année bi bi di ñëw bu loolu amee yaakaar nañ na sax peut-être ba fale ba balay at mi jeex di nguur gi dana dugalaat leneen parce que daaw eh, effectivement mhm. à part de finances rectificative bi bi ñu demee ba ba vers novembre décembre am na ñetti milliards yoo xam ne nguur gi génn woon na ko pour gën ko dugal ci bor bi yaakaar nañ ne aussi euh, à part li ñuy dugal ci loi de finances rectificative bi dina am leneen loo xam ne peut-être fii ak décembre dana dugg pour que bor bi gën a wàññeeku pour que année bu bees bi nga xam ne dinañ ko door fii ak octobre novembre que ñu mën ko commencer vraiment ci conditions yoo xam ne vraiment yu euh, yu baax li ci des mooy euh, ñun waxtaan nañ euh, démb ak tey pour xool nan la ñu mën a def yan saafara la ñu mën a def pour que ndongo yi nga xam ne ñu ngi koy indi suñu école yi ñu mën leen di leen jël en charge c'est-à-dire di leen jàngal te problème yi amoon du am loolu ñun ak nguur gi ñu ngi ciy waxtaan am na ay saafara yoo xam ne ku nekk am nañ ko même waa mairie de Dakar euh, ñoom pare nañ pour jàpp ci pour que xale yooyu ñu mën leen fayal suñu école yi ñu jàng-jàng boo xam ne vraiment bu ñu génnee danañ am lijaasa yoo xam ne dina leen may euh, euh, sans problème ñu mën a euh, liggéey wala ñu mën a def li nga xam ne euh, bëgg nañ ko soit muy euh, taxawal seen bërëbu liggéeyukaay c'est-à-dire seen entreprise wala ñu mën a mu xool li ñu def. léegi li ci am mooy à part loolu wax nga affaire au diplôme reconnaissance diplôme président wax na ci nguur gi taxawal na ay kuréel yoo xam ne tey Sénégal en tout cas pour ñu li ñu xam. Euh, daara yi nga xam ne yëpp bokk nañ ci CUDOPES pratiquement mën naa wax ne ñëpp ñu ngi euh, topp ci li nga xam ne nguur gi moom la taxawal pour que école bi dox pour que njàng mi dox te tey mën nañu wax ne pratiquement ak euh, kuréel yooyu muy muy DGS muy ANAT diplôme yi nga xam ne ñu ngi koy jox ndongo yi diplôme yoo xam ne njàng mi dañ ko saytu donc mën nañu wax ne diplôme yoo xam ne euh, yu baax la yoo xam ne nguur euh, reconnaître n'ako parce que diplôme bi euh, nguur gi da signé diplôme yu demee noonu nag ah mënuñu wax ne diplôme yo yoyu dafa am sikki sàkka bi diplôme yo dina may may xale yi ñu dugg ci fonction publique ñi ko bëgg dina aussi leen permettre yi nga xam ne ñu dugg ci bëgg nañ dugg dem ci entreprise privée yi walla yenn organisme yi ñu dem fu mën fa dugg sans problème donc à l'heure actuelle Masha'Allah, ah, formation yi nga surtout accrédité wala accepté que nous doxal wala en tout cas ñu ci suñu école yi formation la yi buñ ci buñ ci buñ ci ah, euh, ak du am dara luñ euh, bu nañ. loo xam ne war nañ ko leeral ñun bu ñuy jàngal euh, ndaw yi pour ñu am diplôme mooy d'abord pour ñu am diplôme la du ñu leen promettre du ñu leen dig ay liggéey. peut-être mën na mën na am parce que euh, comme ni ñu koy waxee sàmp saaku saaku pombiteer boo gis am na ci pombiteer yoo xam ne ah, baaxul. léegi ñun li ñu ci def mooy ñun suñu kuréel bi ñu bokk. dek euh, ci suñu biir képp ci koo xam mu ngi koy def la wax nga bàyyi loolu parce que boo ko bàyyiwul dañ lay génne suñu kuréel parce que kenn du yàq suñu kuréel parce que bu amee bu fekkee am na koo Nous, da ko def mais dañ naan ñëpp la ñun déjà ñun suñu biir duñ ko nangu ku koy def buñ la waxee nga bañ danañ la boole ñi nga xam ne ñooy kilifa pour que loolu du am ensuite am na ay ay ay nguur gi am na taxawal na ay kuréel yoo xam ne ñoom ñu ngi saytu loolu pour que même xale bi avant même muy sàkku école bi mu war a dem nguur gi buñ ko bu dana laaj nguur gi walla ñi nga xam ne nguur gi dañ fi teg daf leen fi teg te li ñu ci mën a dolli mooy école yii yëpp école yi nga xam ne yëpp nguur gi daf fay yónnee ay ndongo yu am bac mën nañu wax ne ay école yoo xam ne ay daara yoo xam ne la nguur gi gëstu na ko bu baax ci jaarale ko ci anak sup parce que ku amul euh, accréditation diplôme licence euh, nguur gi du fa yóbbu ñu xam ne am amuñu bac koo xam ne amul euh, récépissé wala arrêté tey

mais kenn tëjul seen gémmiñ liñ leen di jàngal bu baaxul dañuy dem waxi ko ñi nga xam ne ñoom ñoo leen yónnee fi cest nguur gi ah ndawu nguur gi loolu bu amee dañuy dem ci école boobu wala dañuy woo waa école boobu wax ak ñoom pour que formation bi bañ a nekk formation boo xam ne baaxul donc loolu yëpp nguur gi mu ngi koy xool pour que formation bi bu jeexee diplôme bi bi nga xam ne dañu ko jox ndongo yi muy diplôme bo xamné vraiment euh, pour pour pour ñu am liguey wala fuñ ko yóbbu pour am liguey du am problème.